man la Alpha Thioung jeune artiste Thioungis xam nga doog dugg ci cadre musique quoi ak sama frère Bouba Dambaaw mooy ban ban vidéo ci Làkki Sakurumba bi waaw noonu loolu dafa nekkoon affaire boo xamante ne c'est pas c'était pas programmé quoi xalaatuma woon ne bokk waaw bon dañoo am fu ñu tàmbalee quoi dañoo gisee maak moom ñu bokk benn koñ xam nga mu sama frère vraiment nekk ku baax xam nga mu ñëw proposé ma ne ma nañ def benn video xam nga ma ma ñëw teg cung yi xam na parce que moom c'est un comédien man je si un musicien artiste percussion xam nga mu ne ma nañ def benn vidéo ma ne ko ok amul problème mu tànn jour vendredi c'était son jour jour anniversaire am le 13 décembre du ma ko fàtte waaw waaw mu woo ma ay 11 heures ne ma ñëwal départ nga jël taxi nga ñëw ñu dem Maris on a tourné la vidéo te macha allah daal sant yàlla ba nga defee jour boobu après sénégalais yi bëgg ko vraiment muur àdduna ñu cee sant yàlla bu baax waaw vraiment noonu la fa demee quoi. waaw. loolu dama ciy kontaan parce que tamit ku nekk tamit boo liggéey ñaan nga yàlla li ngay liggéey boo nga gis évolution te moom vraiment lu muy def mën na ko moom dara jomb ko daal parce que xale la gëm na lu muy def bëgg na ko xam nga te vraiment dafa yor comédie dafa yor ligne boo xam ne c'est c'est unique quoi moom mun naa am lu ne mais ci kaw mu teg ko ci yoon mu liggéey gëm lu muy def xam nga bañ ko foowee daal moo ko mën a may lu mu am waaw. waa dëgg la c'est que art dafa yaatu quoi art kenn du ko limité wala ngoo koy tënk. musique dafa yaatu ku ne xaj na si voilà moom comédien la mais dafa am dafa am ton xam nga dafa am ton dafa am wàllu si musique comédien la mais am na wàllu si daal comprendre nga yeah noonu koy conseillé. waaw li ma koy conseillé mooy mu gën a liggéey parce que liggéey rek moo la mën a may li nga mën a am ñun bokk. aar aar dafa nekk loo xamante ne dafa dafa siis quoi foog nga foog nga gëm ko nekk ci parce que man ba ma ciy nekk dama am jaar-jaar yu bëri ak samay cung moo waral xam nga dama jaar si ay programme fu ne ay at ay 11 ans maa ngi si cung temps yi moom sax xamul art mi ngi woon ci leneen peut-être xam nga ma gëm ko ba léegi liggéey lu mu la may du la ko xañ gëm sa bopp liggéey ba pare di créer tamit foo faut dans la vie bul topp gars yi da nga koy def il faut toujours créer boog man créer moo may fu mu munti am rek créer moom ko may quoi c'est pas photocopier mais damay créer moom tamit day créer. bien sûr bu baax fépp ba génn planète bi sax di ji loolu parce que artiste booy liggéey da ngay ñaan yàlla li ngay liggéey mu dem fépp xam nga muy tukki ngay tukki dem fépp incha allah boog loolu nañuy ñuy ñaan quoi lu ñuy liggéey xam nga comme dëkk bi monde bi bëgg nañ ko ñu gën a avancé di dem feneen di bëgg nit ñi xam nga loolu la ñuy ñaan ko incha allah.